ah Baro du moo doon jéem a dem rek di wor. am ah. na ñii ñii la ñuy jël ñu remplacé ko. Baro Messi la de. ñii la ñuy jël ñu remplacé ko. waaw wali du Mari Sadio. ba muy dem taw boobu Mari Sadio la. maanaam gars yi daal la leen fi teg dem. histoire Mari Sadio bi bëggoon naa ko xam dëgg wax ma mooy lan. yow ma def ne xam nga lépp. kan yow. <laughs> loolu nga ma xool li ma histoire woon histoire xam ko. Sam bu ma sosal waay. looloo yàq réew mi nag. waaw dañuy jox nit ñi lu ñu waaw xamuñu déedéet. bu doon ah. na. oh. Samb fal na buur folli na buur. buum. ndax Soumangorou Kanté. ah. dama doon dem de. ini suu. ini suu. ini suu. aw ni cee. ini suu bu dee guddi la. ini suu. du noonu. nee leen suu. te waxu chou nga bëgg. chou pomme. ah. inde saabu bura xaajee lee. <laughs> tawre kunde. <clears throat> fetaxuleen waay fetaxuleen. de moom ma raxas sama oto may ma yëre. Ah. loolu li na taa ba ma fa safaana taa karaka junjuna taa bala baafulo. aru ah, baafulo. loolu waay eh. bu ma ko defee. ah Marisa. ah. Eh. Marisa. su ko defee. est-ce que ah. waane la dañoo waane. ci loo maîtrise. dañoo waane ki ma andi tey. yow booy Cees lañ da ngaa fàtte loolu. ah sama ganu tey gi. Mbaye nga nee di moom ah. sama ganu tey gi biir na. ngonalu tey li dina biir. borom festival. ndax defe naa ni bu ngeen juumulee bu ngeen xoolee Kora xam ni. Ah. Mali laa jóge jaar tàmba aw Thiès ci terrain bi doog ak si Dakar. express Ndiaye aw nga fi nga war a aw. foo bàyyi kaay. kaay ma nga Mali kaay Mali la bokk. baa ñëw ah mais bu ma nee Mali kay kaay ngi ci biir. ah. ki ma andi tey pont la pont pont. entre Mali ak Sénégal. moom ki nga indi tey. pont entre tàmba ak Sénégal. mbaa dégg na wolof. waaw waaw. mu représenté dignement nag. mandenki adduna bi yëpp. Ah. di ko bëggee di ko safoo di ko gërëm di ko sant ndax représenté la leen dignement. te man nañ son digne. waaye nag mu ñëw nag réew mu nga xam ne nag mooy pays de la Teranga Sénégal. Mhm. marque fi mais mais bu gan gi ñëwee nga laaj ko ko. <laughs> yéen ñi bu gan gi ñëwee nga laaj école yéen xamu leen ñoom Soundiata Keita. waaw. dafa handicapé woon pour wax la ah, rek. loolu waxuma gi mu bokk laa man denk la woon. waaw kon kay jeex na tëbal loolu ka gan. ki mandi tey. waaw bëgg boppam. waaw indiwoo Mori Kanté yow. man Mori Kanté la bokk te man maa nga Mali. xam musique mën musique te di ko def fi mu ko war a defee. ah day def ci nag du jafe. boole musique mandenk kan. Mariétou Cissokho du Mariétou Cissokho. bëgg Mari Sadio bi tar na na foor ma annoncé sama gan gi. Ah, xanaa daraame baro day tiital naa ko ah cum waaw waaw awul awul ah dinañu may mbas mi aw awul koraju be manisa bafula be manisa ah, kontaan naa manisa jo sisam jijiri pijiji kana faga kun sa di ma kana faga mɔgɔ faga kun sa di ma sa jɔ lamɛnya mɔgɔ lu banta tugun koyo hmm. ni yara ni dɛbɛ. walahi hande. <laughs> hande maa yɛrɛ. tubabu na Paris. gunu. aj ko ci kaw octave. Sadio. attention kontaan naa Sadio <laughs> Sadio Sadio Sadio Sadio maa ngi dénkelem pe pe man lay woo minna makari bedali minna hmm. hmm. kini minna minna mbo dali den fe fe fo tantan oh. la dali mandi <laughs> baculu la dali mandi horo tantan la dali mandi oh, dali ni ni ni だからそんなことなんだ。 saa neex sekk sekk sekk sekk jërëjëf sekk kontaan nañu caw aw ni cee caw ñaan aw ni wara ani suuf aw ni cee ani suuf cee ani suuf cee ani suuf cee ani suuf nu ñu waxee toogal isigi isigi isigi wala taaxu bëgg ma wax waxal taaxu taaxu taaxu sooni ke la taaxu akadi de akadi de a akadi ah gaa yi defe naa ni kontaan ngeen ci nu mu nuyoo. non suñu dafa yëngu ah, lii day wane ni moom wane na li mu doon marqué empreinte. si sama biir wax nee naa la. marqué na empreinte indélébile. moo tax ma ne la sama biir wax. waaw dafa siggil deru Mandeng. dëgg la waaw xam nga nit la nit la nga doon deru Saraxule doon ku ne woon alaaji ku bu fekkoon ku ne la nga doon. Mhm. da nga cay xaar sa tànk tubay. Mhm. fexe ñu siggi. Mhm. Sénégal dina weesu. xam nga ngoonal tey li mu wane. waaw enracinement. ouverture ouverture. Baye Senghor. Léopold Sédar Senghor ñëwaat. maa la ko wax. moo tax jibi waaw. ma kontaan nga sagal ma. siggil ma ci samay kanamu xarit yii nga xam ne ñu ak ñoom barki démb la démb tey doo a ñëw. man buñ ma sasee rek damay nangu. ku ne xam ne na jamono ji jibi Dramé amul jot. ndax mi ngi organiser nuit di Bazin onzième édition te dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw. ma fekk ko muy répété. ma ne ko jibi yaa ngi dem ci bis mu rëy. waaye kër gu rëy soxla na lay. dëgg la. cour des grands. mu ne ma seex foofu ngona la ma ne ko waaw mu ne ma damay ñëw. marchandise jaay ko fii ñëpp fi bëgg ñëw. te du ma ñëw man dong. Hmm. dinaa andi correct bi nga xam ni ku ko mën ku ne da nga koo donnu ndax di c'est héréditaire. ndeysaan waaw lii dañ koy donnu. dinaa andi xalam bi ndax baro dégg naa ma nga Espagne. waaw dàq nañ ko sax. déet dàq ah dàq ñu ko dàq dem Espagne. congé la am. non <laughs> baro bu fi ñëwatee damay jóg na. kon jibi kii lañ jël léegi. Eh. ngona le riche na. ngona le riche na ngona le biir na. waa Ndiaye bala ngaa dem. ah. parce que arrivé naa ma. defe naa ne bët la cay ñuul ak la cay weex benn mënu dem bàyyi morom. ko wax noo ànd ñëw na indi koora waaw. ñoo indi xalam. waaw ane maman chérie. ah waaw ma jaaxal ma loolu moo jaaxal ñëpp la looloo ma jaaxal man maman. Ah, alaaj nag rasta day may nit xam-xam de. <laughs> man day maman jotuma koo gis. <laughs> fekk ma ko jot a. maman elle est de dormir wala elle est de kii waaw ana maman si. dina ñëw ci maman. non déedéet déedéet nuyoolu dal ak jàmm. ah waaw nuyoolu. na nuyoo tal ak ana maman chérie. parce que parce que kaay ma xamal la. Ah. ñoom ñaar ay ay comme ay pitax. ah boo gisee kenn ki keneen kaa ngi ci wet. boo dooree kenn ki rek xaaral keneen kenn. waaw waaw waaw copain ana moom xam nga ndeysaan dama gan yi jóge Mali. waaw ñëw commencé nañ ñëw. <laughs> ba Côte d'Ivoire. xam nga yéen hôtel yi dafa fees suñu tool yi. law la cat maa fe de. den ci ñëw law la cat yow ma ñëw maa fe. maa fe de xam naa ne desatul Sénégal mu ne moomay sàmmi cat naan ma law la cat. tega dege jeex na Sénégal tega dege jeex Sénégal nuyul. ginnaaw bu ma sant yàlla julli Seydina Muhammad. waaleykum salaam wa rahmatulah. sant sama ñaari wajur. jërëjëf Sane. di leen nuyu macha allah. xam ne ndeysaan man dama leen déggee mu xarit nga ndax man ngoonaal du ma ko waaw xam naa ci dara ma nekkee Sénégal dem keseetaan mhm. ngeen def lu macha allah lu rafet jërëjëf ne ndeysaan day indi sax day indi sax stress euh, Sénégal mhm. vrai Sénégal day mhm. ñaan yàlla ak weeru koor bu tedd bu ñu jógee fii macha allah yàlla may leen si yokkute. amiin amiin su weesoo may nuyu ndeysaan waa TFM yëpp. surtout mhm. alhamdulilah suñu duwaañee suñu grand. Mhm. nga xam ne mooy suma jigéen du. du ñu képp ku liggéey woon ak këpp ku ñuy seetaan xam ne ñu xam ne mhm. bi ci Sénégal mhm. ñu mhm. parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan dégg ñu wolof xam naa tey émission bi danañ ko def en bambara. ak en wolof. waaw Samba yow jëlal bambara yaay traduit. jëlal bambara yi. bàyyi leen koog man jërëjëf baa bambara. waaw wala ñoo xuus. alhamdulilah rabbil baba masa wala ɲuman dɔn kan bangebaga filaw fo kan mhm. kanubagaw ni jigilamɔgɔ ni jatigiw fo ne mhm. de dɔ kɛla jibi darame mhm. eh, bi ye n de ye jibi darame wele kan ka sumu nee nañ tey ñu dégg dëgg. Mhm. dinaa ko tekki après dinaa ko tekki dinaa tekki li mu wax. Eh, Djiby Dramé. ne eh, ni nga kora fɔlɔ ni nga ŋɔni fɔlɔ mhm. an ka fara ɲɔgɔn kan mhm. aw nisɔndiya awa ala sago sago ti na. yàlla dégg na eh? ah, ngi nuyu mbëkk xeetu bambaram. waaw Djiby dama lay ñaan di ko teg yàlla li muy wax bu fekkee du bokkul wax. waaw waaw li ko dalee Mali ba Sénégal mi ngi nuyu kullu bàmbara di leen xamal ne moom seen doom Djiby Dramé moo ñëw ci ngonal tey ànd ak xaritam yii di ko koral di ko xalamal ne nag seen doom la tàllal na loxo ngir ngeen ñaanal ko ci ay waxtaan dang waaw ca Atlanta. neex trop. muy benn festival bu ma fa demoon. Mhm. ñu fay organiser nuit du bazin. Mhm. ca Atlanta États-Unis. Mhm. man leen ñun de Sénégal ñun. am na nañu suñu nuit du bazin. waaw waaw wax Djibi Dramé moo koy organiser Sénégal. ñooñu di ko organiser États-Unis ma ni ma nuit du bazin ñun ñoo ko moom. Djiby hmm. Dramé ci ñun la ko jëlee. ñooñu fu ñu ko teg. Hmm. wóoruma. 11 ans. xamuma. waaw fukki at ak benn nit di organiser benn affaire. Hmm. te defe naa ni bi ma laajtee nee ma ñooñu. ak moom ay xarit lañu ñoo daan ànd. ñuy di bassin fu mu jógee. waaw. ñu ngi jógee suñu dëkk maam yi man. moom njëkk def ñu buñ tàggal sa dëkku maam ya ca Mali man denk na dafa was waaw rëy loolu am bal loolu waaw ñun suñu woy méngoo ak suñu solin méngoo ak suñu bon comportement waaw ndax woy su yeetewul rek dara jarutoo ngee woy d'accord man ko naa ba tey solin dafa baax su woykat parce que ay woykaay lañu da ngay seetaan écran da mhm. benn woykat jógee sol benn mbubu boo xam ne su dee amul exemplaire bu baax mhm. boobaa day yàq génération dëgg la mhm. day yàq génération génération dëgg la imagine toi que waaw nga sol benn mbubu boo xam ne xale eh, man dee solin bu baax la dee bu bon dëgg la c'est important de dire. nga mhm. jël ci loolu. mooy man sama maam yi. waaw ba sama waajuru jigéen ak bu góor yi. su ñuy wëy dañuy sol lu yiw. Mhm. dugg ci géew bàkk seen biir. man nag ma xam ne si loolu laa juddoo si lool laa yaroo may topp seen chemin mais nuit du Bazin mu ngi jógee Bamako ma ne ko pourquoi pas ma nekk Gune juddoo Sénégal di Tambacounda yaroo Tambacounda magee Tambacounda. bëgg sama askan bëgg sama waaso dama ko indi Sénégal. waaw mhm. ah, mais yow daal yow du loo créé mais loo jëlee. fële la indi fii waaw waaw. d' accord naa nañ ko xam nga loolu noonu. non kon donc man moom gis nga wax. boo ko déggee rek di nga xam li yanu maanaa ak li yanu. gis nga saa li nga wax nii. waaw daa mel ni tey tukulóor yi ne Baaba Maal ne maamoom taaraa. waaw ñoom maama ko doon way nga ñëw tey ci olof yi ñu ne la ala kasira maa ko moom mhm. ñoom maama ko doon way mhm. nuy des basin nee na la mhm. moomu ma ko ñeneen Atlanta moomuñu ko ñoom maama ko moom Mali lañ ko jëlee ñun ñëpp andi ko fii mais am da nga naan ataaya ah damay li may wax mooy non ñi ñaan kenn mënut a di wokk gannaaw <laughs> mais man fi may ñëw mooy jibi il du mérite waaw parce que ku ne xam na ne Sénégal waaw baax na doy na naanal. waaw waaw bisimilah. bu mu jàpp kenn arrêté nee na kenn àggale après keneen ki naan keneen ki àggale. Mhm. dama ne yow puusal yow yow <laughs> xam quoi. nest ku ne xam na ne Sénégal boo fexee ba marqué fi euh, place de choix ci monde musique te dudul mbalax. c'est très difficile. c'est très difficile. Mhm. waaw lu yomb ndax ñun lu ñu xam mooy rëg-rëg bu jaa. Mhm. ñoom seen wu paajam tama bi jaar fa. marimba bi naan ko kungun ngun. nga tot fii. waaw nga ne nga nu mu koy def ko rek gun gun rek. nga tot fii waaw. donc jibi ñëw ak style musique am dugg ci xolu sénégalais yi. waaw waaw waxuma sax Sénégal. Afrique mhm. bi yëpp. jibi loolu ban secret la. nan nga def ba implanté wu fii rapidement nga taille une place de choix dans le monde de la musique. Eh, imagine-toi que macha allah suñu waajur yi jigéen a yu góor yi tabaarikàlla ñu doomu naana yi xarañ ñu jur ñu fu ñu war a juree waaw def seen mission fii ñu am fi jaloore waaw pourquoi pas ñun du euh, ñuy suuxal ñoom lu ñuy liggéey ñu ñu bañ bañ koo fay. yéen ngeen suuxat ko. suuxat ko. xam ne ñoom def nañ seen devoir. waaw ñoom seen seen sué ak seen inspiration euh, bu baax lu ñuy ñaan yàlla ñi euh, ñu am doom bu leen jël relève bi relève bi. moo taxit ma ne ko man musique Mandenk si moom laa juddoo foofu laa yaroo. Mm-hmm. du ma ko nangu mu fay. Mm-hmm. j'ai sama début méttoon na loolu. ci fan nga fan mm-hmm. man maa ngi jógee man maa ngi juddoo Tambacounda. Tamba dëkk bi naa Kousanaar sama wàllu yaay. Kousanaar Kousanaar dañ koy romb laa juddoo. waaw mm-hmm. ndeysaan ñu ngi nuyoo suñu wajur ba fa nekk. Mm-hmm. macha allah di yaayu Kébé. Amadou Biagi. waaw mi ngi Tamba di nuyu waa Kousanaar yëpp ñuy seetaan. parce que man foofu laa juddoo. ndeysaan. bu ma amee sept ans dañ ma yóbbu sama kër turandoo. fan fii Tambacounda waaw. 42 kilomètres de Tambacounda. Koussanar Koussanar waaw foofu laa yaru dem si yàlla sama turandoo El Hadj Jibril Xonte ak sama bajjen ñoo mën a gaajugoo ñoo ay ñoom ay intellectuel lañu. Mhm. ay intellectuel lañu waaw intellectuel lañu ñoom. sa famille kenn daanu way yow. dina ñëw ci loolu par exemple sama famille sama papa mooy ndaanaan sama yaay aussi macha allah. mais ñaka yar ay intellectuel ñu ma ñu may yar. ñoom xamuñu xamuñu xamuñu way ñoom jàng lañu xam mais doomu géwél lañu. Hmm. mais alhamdulilah rabbil alamin fu ñu ma yaree xam ne ndeysaan man damaa juddu rek ma juddu si famille bu nga xam ne lépp am na fa kooraa jëmbee tant xale suñuy foo ndeysaan su am ne éclair de lune mm-hmm. foofu laa débuté man sama woy mm-hmm. ma ñooy Tamba yàlla def na ndeysaan sama kër turandoo amul woon loolu ndox laay naan booy boobu waay mm-hmm. si loolu may du du dem école waaw école bi fekk woy bi dugg na ma pare ma dugg na ba pare. virus virus bi dugg na ma. daawoo waay ca loolu loolu moom daal. attention da nga doon woy la <laughs> quand les quand les quand les élèves. Euh, euh, di jàng euh, étudier. Mhm. en classe. ñu ne monsieur Djiby Dramé chante en classe. froncon lañ ma sur la table. pomp mhm. nañ ma. waaw loolu yëpp. pomp ko jàpp mais yan waay nga doon woy maam. xam nga ne kon xale suñu demee di di di ngénte di dem si ngénte yi di watu xale yi xale yi ndeysaan tonton jëlal ma mbu mboobu suñu jota bi ndeysaan suñu jota kayta suñu jota kayta bi ndeysaan ndeysaan lii nga daan way nga ne nan nan nga daan def bio bi xadile jalikunda awa bi xadi bi ye dondu mambaye hmm. ngamu jali kaalu ani jali musolu bi xadi le jali kunna directeur ba bu dee bambara moom du la dàq hmm. mm-hmm. directeur école ba nare maxa be nare na bi xadi le jali kunda dégg nga instrument gerte la alaa ji lu neex jarul dégg jarul appartenance u langue boo ko déggee rek xam na neex na suba station alaajee nga kooku octave la suba suba octave suba wala wali ganda juju ba kabala munoo ko xam naa ko teg nalu sona mbe manden foli ni wala wala sabula ni be jaliya kuma folola bibi ah. jibi takkol foofu hmm. jibi takkol ah. foofu ni ma folo jatama i b'a laban jatama sugulu kutuma ni sugulu yamado ñakumala kabala simo ni jata be dana dóor de mbe simo ni mala wali ganda hmm. takkal foofu jibi takkal foofu léegi Cheikh ma tontoogul xam nga man loolu moo man damay bëgg moom mooy question mu koy daanee. waaw waaw fan la parce que dafa dafa imposé wu fii ci biir réew mi. man damaa bëgg wax waaw ci foofu laay dem dama ni ko moom dañuy jóge fële ca Kousanaar. boobu du ko yari dama ni dama ko bëgg a laaj moom ci ban âge la xalaatee ni wala la ñemee dugg si Dakar ba pare soo ko wax ci imposé wu bi. ok ok. fu ma mënoon jàng ba pare waaw. waaw sama turandoo tellement dafa jàng. waaw xam na lii éducation de base. waaw na ma mu woo ma bureau am. waaw mu man xam naa ni yow bëggoo jàng loo bëgg loo bëgg wax ma loo bëgg ñun ñaar yëpp ñoo fi nekk ak yàlla. ma ne ko turandoo man damaa bëgg a wëy. bëgg way. way bëgg a wëy bëgg a temps boobu école bi école bu naa ma jàlloo laa doon jàngee. waaw mais suñu école mu ju jël ndaari si théâtre. ci théâtre dama doon théâtre ma doon fecc dama doon comédien comédien lu ma doon comédien dama doon def loolu yëpp mm-hmm. waaw aaya woon comme waaw nañ ko joué sant yàlla waaw ba xam ne ndeysaan mu ko laajtee moo ko mu am compréhension mu comprendre la ma indi delluwaat ma sama kër yaay fi mu te dama ñëw fekk sama yaay fi Dakar fekk sama yaay mi ngi fii sama papa mu doon liggéey dernier Sorano sa yaay opposé sa papa sama yaay xamul woon woykat laa woon mais papa ma ngi woon Sorano sama papa ma ngi ñoom ñaar yëpp xamuñu woon ndax parce que ñoom yaruñu ma Mm. pour ñoom daal yaa ngi ci intellectuel ah, ko ma ah, ni waaw ñu kii parce que xam nga une heure nga am te yëpp daf ciy xaj ban âge nga xalaata dugg Dakar ba naan da ngay imposé wu ban ci ma imposé bu ma ñëwee ba ñëwee ba sama yaay yóbbu ma police dóor ma mu ne pour ma jàng ma ne demee woy sama yaay sonn ma xam man maay taawam man police aslem dóor nañu ma fa uniquement pour ma bàyyi woy hmm. sama yaay ne jàng rek la ma sant ma jàng ma ne ko mënuma foofu laa ko waxee ma ne ko dama bëgg ma yóbbu ma école des arts muy ma avenue Ferragu en 1994 95. nga def école des arts je xale bu ndaw 94 95 96 97 maa ngi école des beaux arts. pour jàng musique. waaw dolli xam-xam jàng solfège jàng gamme jàng temps jàng harmonie. temps boobu bu waa aigu laa yor yor moom bu waa base. Hmm. su ma yuuxoon rek da nga ne benn bi benn. waaw euh, bi yuuxu. ñu jàngal ma nag voix base ma indi sama voix normal lu muy waxee. d'accord mm. kon école des arts op euh, jàngal na ma lu. boobu solo si soxo moo poñe woon Sénégal de defe naa. solo si soxo waaw foofu waaw. te boobu waaw waaw solo. na trop. non non non non non. Ah, non non dama laajte dama fay newoon. est nekkul bitim réew est ce nekkul bitim réew. mi ngi bitim réew solo si soxo dafa rax woon comme yow. def na fa jaww rafet macha allah Sénégal. waaw yaa ngi may voilà. dëgg la posé bu ma defee loolu mhm. ma am contrat Sorano fu ma amee contrat Sorano sama ma bu góor Babou Laye Sissoko jël ma contrat Sorano mu xam ne man njiw rek laay mu xam ni. ngéwél rek laay woy ngéwél. ngéwél bambara xam na ngéwél. Ah, ñun ngéwél lañu. waaw ah, ah, ci soo ngéwélu bambara ba alaaji dëngal doon sonal. yaroo si ngéwél mhm. soxna doomu géwél. waaw waaw doomu géwél mu ma jur yëpp ay géwél lañu. ñi nga jur ay géwél lañu. ay géwél lañu mais rip waaw. ban album nga jëkk a génn fi Sénégal ji mooy Soninko. Soninko loo ca njëkk way way bi la ci gën neex ah Sonico maa apporté beaucoup de choses. c'est ça mooy euh, ndeysaan kenn di jaay weli neex na ma si. waaw kenn di jaay weli. moom laa woy Alain sa doomu ndey. boobu la njëkk a woy. jour boobu laa njëkk gis Alain. alaaji xanaa di ko ñawal di ma ñawal sama premier sponsor Alain Ndiaye la woon. dëgg la ku fàtte démb doo gor taalib Serigne Touba boobu maa ko mos a fàtte sama image kon nag nañu fàtte démb ñu fàttali ko démb c'est important daal kër na jaaweli am sa wurus am sa xaalis moom ñi laa ko wëyal sama nijaay bi tëgg koora ah, waaw da nga fa amoon wurus ak xaalis mais léegi du sama parce que euh, sama rakk ma ba ku topp si man moom la takk nijaay boobu dama koy baare léegi sa goro la goro la goro sax dama ko def waa ji kañ ñu ngi reere sama rakkaat rakk la parce que lu tax ma dugg si takk <laughs> jibi yaa ngi kaañoo sa goro bi de. lu tax muy dugg takk ay dafa takk loolu moo ma may succès macha allah Sonico lu tax ma tudd ko man doomu Soniké la. Hmm. sama papa Saraxule la doomu Soniké la muy El Hadj Jëmboo Dramé kooku digganteeg ala la ak Gande. ak Bakel gi dim moo dinkaane Ndiayanke man soo ma woy doomu buur man na naam doomu soo ma waxee doomu bundunke. ko mu ngi nii bundoo ngi man la naam. waaw soo ma ne doomu gajaaganke man la naam soo ne xayre man la naam soo ne gidimaxa man la naam soo ne fuuta man la naam. ar nani pulaar. la wax ni man euh, sa wàllu côté day côté mhm. doomu oriental la ñu ndax mën naa xuus xuusal demal ngay way ñëwal jibi dana amee indi beneen facette parce que mhm. gis nga way bu américain bi wayee français bi way bambara bi way olof bi way bu neexee gis nga xol lu neex tàbbi ca ba la ko wax lu neex rek dugg ci waaw sincèrement ñu nangul la ko nag waaw muy def macha allah neex na yàlla yàlla yàlla dafal cat dafa neex sincèrement musul tëgg morceau boo xam ne da ngay naan ah bii daal kërëb kërëb vraiment muy réussir aussi ci ñëw jibi ngay jànkoonteeg ay difficulté mm-hmm. Mm-hmm. nan nga koy surmonter ci wàllu euh, famille ak ci wàllu imposé wu ci musique fii parce que man dama gis ni ci grand théâtre yi wala ci ci ci ci ci Sorano yi mm-hmm. rek ci la Djiby Dramé di gën a fés parce que dañ naan Djiby Dramé ci ngénte yi ak euh, yenn mariage yeeg mag yi nag ñi nga xam ne dañu riche ci nga koy gën a gis waaw que mu gën a CD. imposé wu CD bi def ay ventes. di def ay concert ak ay yooyu. di def ay concert di ci ay concert kii. non plutôt moom dafa am dafa mel ni dafa am benn. yoonam pour sa benn yoonam fu mu xar rek. Mhm. dafa dompat li mu fay dompat. Mhm. macha allah di dawal ay ranjam. di boof di sol ay gramme bu 300000. moom rek ak yoonam la jibi jibi eh, eh, eh. jibi euh, gis nga mag. Ah. bu dee naan ndox mu tàng suukar saa tax. Ah. Ah. jibi lan lan lan la. xam nga nit ki. sant yàlla loo mun. waaw jarul euh, ngay dem jaayu. waaw sant yàlla. comme li may wax rek ma ne sëriñ bu mun. bu jël ay bagage am di dem man mun man sëriñ laa. dañ koy fekk si. da ngay fekk si. waaw. Mm-hmm. lakkat yi ñu ngi may déglu. xale laa nag demaguma mm-hmm. fenn. Mm-hmm. samay maam ñu ngi dundu samay papa ñu ngi dundu samay yaa ñu ngi dund di ma déglu. mais nag woy lakkat dafa xam ne ndeysaan dafa euh, nekk ci yoonam. waaw. soo moom rek demal jàng way ba suba ñi dañuy jàng ba gannaaw subam saa neex ñi dañuy jàng waaw waaw jàng waaw jàng rek du wees kon nag moo tax it suñu nekkee si géew bugguñu ko tuutal waaw bugguñu koo ñu niilal ko wala ñu minimiser ko waaw il faut de ñun dañ koy valoriser mhm. suñu askan bi bugguñu mu muy muy sàmm dërëm ñaar dërëm mhm. dañ koy valoriser Mm-hmm. ndax musique euh, mandeng loolu la laajte recherche boobu loolu la laajte kuñ ko bëgg a tuutal sax yàlla ngeen baal ma si terme bi yoon bu ngay jaar sax bu ñu ko jaar mm-hmm. ndeysaan tellement dañ ko valoriser dañ ko bëgg suñu xol mm-hmm. moo taxit tey Djiby Dramé soo ko laaj soo ko xoolee euh, souvent day gis promoteur yi di ma woo Djiby Dramé bi tel boîte bu ne nga teg ci tel boîte ñu woo sama ménageur wax woo sama encadrement mën a ko noonu dégg wax fulla moo ma tax a jóg fayda moo ma tax a jóg. sooy musique daal du dem ci ay doo ko dem di yow di tëgg. voilà parce que hmm. ku la miin funtaram yab la. Hmm. concert. concert pourquoi pas. ok ndax macha ñu bari bëgg na gis Djiby Dramé si écran bëgg nañ ñëw fekk ko si concert hmm. di ko consommer. loolu su jotee nag damay dem sa neex da ba mu baax. très bien def ak ñoom. mais instant yi daal mu su ma demee ñu déglu ma ba xam ne kii. très bien lu mu ñëw fulla moo ko tax a jóg ba pare aussi lu mu wax nii. c'est la c'est jëm ci vente cassette yi. ci vente mhm. CD yi. Mhm. parce que dañuy gis ne malien boobu te mu tudd ko fi léegi. Mhm. te mën a woy laa. góor la wala jigéen ku góor. Seexuna euh, Bambino. Salif Keita nga wax wala. Seexuna Bambino. Bambino waaw kooku Guinéen la waaw kooku aussi dafay def euh, ay vente dafay def ay vente immense. dafay def ay euh, ay. Salif Keita ci ci non non. ki mu wax nii Cheikh Ba Bambino waaw. defe naa waaye tànn waaye noonu ak. Youssou ala kasira waaw waaw. bon moomu. li nga vingt-huit CD lan nga ci xalaat ci niveau international. alhamdulilah rabbil alamin parce que man. Euh, sama début ba léegi maa ngi dugg léegi sama onzième année année waaw sant naa yàlla nag ba ma xam ne euh, yóbbu na ma musique bi yóbbu na ma yóbbu na ma foo xam ne mosuma ko imaginer ndeysaan tey soo waxee histoire du Sénégal si génération tant jamono fi ñu toll nii. si mhm. côté Mandenk soo waxee ñeent ba ñeent juróom yi tudd Djiby Dramé. waaw waaw boo waxee benn sax yow la ñu tudd. <laughs> sant yàlla alhamdulilah kon nag musique euh, Mandenk yaay roi bi Sénégal. waaw waaw ah, alaaji loolu jarul laaj. yow la yow la yow la tëbal continuel yow la yow la tëbal tëbal demal. ñun namee nañ la ko jëlal. sama sama ñoom mag yi ngi fi sama papa yi ngi fi. comme ñan comme ñan. waaw bari nañu fi comme ñan. kon man moo fi way Mandenk. sant yàlla man alaaji xaw ma keneen kuy way Mandenk. ah ah sant yàlla kan ak kan mooy way Mandenk Sénégal ah, bari nañu fi. kon kan bari nañu fi. waaw continuer <laughs> attends ñëwal bàyyi ko mu dem est-ce que buñ ko jaxase kenn mais man. waaw xamuma kuy way man nag. waaw mais yow nommé nga euh, euh. léegi nommé bi nañ ko dindi. Euh, parce que moom dafa oyof. nañ ko dindi waxatuñ ci. léegi dama bëgg wax ma kan kan way fii man dañ Sénégal. bari nañu fii. Ah. ah bari nañu fii. Ah. mais doo tudd doo ma tudd seen tur parce que Euh, ñu la jiitu si woy jiitu la si njëwél mhm. mais nga sargal leen yooyu foog nga sargal leen waaw tuddal seen tur sargal leen cër mhm. ñoo xam ne bari ñu fi lool diggante Tambacounda bu ma juddoo ji xamoo leen xam na non non <laughs> mais ki mais kuy man tey bu Youssou Ndour toogoon fii sax Youssou Ndour léegi ma ma limal leen waaw waxal limal ma leen waaw ndem si yàlla macha allah sama baay. bul ma tuddal ndem si yàlla bul dem bul tudd ko dem ndem si yàlla. déedéet dégul dégul rek man sa papa après dinañ ci wax. sa papa mooy sunu kilifa dinañ ko ñaanal sargal ko. ndem si yàlla sama papa bu jógee fii. waaw ndaanal la woon. waaw. ay moromam yu bari ñu ngi fii. waaw kam kan. ko ngi fii. Eh, waa kër kii yi ndaanal la déglu ko déglu ko seex ndànk moo tax ma ne bugguma liim waaw daf leen a xamul ñoom jigi ba jaba eh, jigi ba si soxo jigi fii dégg nga jibi laa jabar sax jibi laa si soxo jigi ba si soxo ñu ngi fii bugguma leen liim waa kër sunjulu waa kër sunjulu waa kër sunjulu ngi fii waaw bugguma leen liim waaw moo tax bugguma catu kenn sama nijaay tonton maa di ngi fii waykat la ndaanal la bugguma ko liim waaw jeex na ate nañ te boobu jeex na nag euh, ñooñu ay kilifa lañu waaw euh, man ba léegi xale la Cheikh Naar d'accord Ndiaye waaw man fi may ñëw mooy. Mm-hmm. parce que ñun mën nañ déglu wayam mu neex mais du ñu xam thème yi muy way. ñu ne rek way wa neex na amul tem nag. ndax way yi ngay way. ah ndax mi ngi dem tem mm-hmm. di yee nit ñi bañ a topp rek di way sa maam ci bambara. di wala sa maama def li sa maama def li. est-ce que yaa ngi way yoo xam ne tey. nangu ki dégg bambara dégg la yaramam dina ne ah. waaye jibi drame bi de teg na ma ci yoon par exemple conseil la leen tegaat ci valeur ci valeur yi valeur waaw sama xarit nga waaye amul tem xamoo leen loolu ñun am nañu tem xamay na léegi ba ne a ko ñun am nañu tem xaw ma ne lu mu xalaat bo ñëwal ko ñun am nañu tem aca la aca ndax këpp ku ñu dégg suñuy làkk xam la ñuy woy dañ leen tax tabarikalla ñu am jom lool ndeysaan ak lan ñi bañ a ñàkk jom tem la day kawayaale si olof. loolu thème la thème la jékki-jékki nag di wax ne bu leen ñàkk jom ci olof am leen jom loolu thème bu baax la noonu ak lan borom de ji bi waaw waaw waaw ak lan ji bi am éducation de base parce que léegi jamono bi dafa changé am yar waaw nan nga gisee changement jamono ñoom noonu la ñu kiiyee waaw jamono ñu changé parce que ñu bëri ba dañuy génn dañuy di jóge seen aada wàcc seen ànd comprendre nga te suñu maam yi njëkk yi ñu bàyyoon fii ak suñu papa yi ñu bàyyoon fii loolu ñun nouvelle génération ñu war nañ ko suuxal gën ko fullaal faydal boo xam ne euh, suñu suñu suñu suñu suñu culture bi buñ ko jaxase kenn hmm. moo taxit ñun suñu woy am na thème waaw ah, waaw donte na dëggoo bambara wala dëggoo saraxul ndax ma doon sànni xeer rek mais am na thème voilà mi am na thème parce que xam nga li may wax hmm. ah. ñoom tey mën nañoo jël nit déjà thème la hmm. di la woy di la galvaniser di la fortifier ba loo xam ne ñeme woo woon ko def te nga war koo def. wala keneen sax gis ci boppam. wala keneen gis ci boppam. dëgg la tu comprends ce que parce que boo déggee mooy la nga dolli jom. Mhm. nga dolli fulla nga dolli fayda loolu bu dañee ci doomu aadama dootoo nit. Mhm. kon loolu dara gënu ko mën a nekk thème bu riche. moom mii. Ablaye Wade la kan moom bu ko feeñal waaye sama waay ah politique nga ah jibi waaw boo jibi de eh alors wuy ma waxal oh, ci ah, loolu waaye jin farax eh wuy ma jibi mos na dara de mos na waaw taw lay waat jibi kay ana sin ma farawaaj di njaak nu mu ko way si ah, bambara darawaaj ah, di njaak darawaaj di njaak dama dog ñëpp acca ñëwul noo ko way si bambara way nga ko Abdoulaye Wade instant mu toogoon fii waaw mu doon président waaw mu nekkoon sa président waaw wax dëgg yàlla jox nga ko cër lool torop ba léegi ba suba man Djiby Dramé jox naa ko cër boobu. ah waaw man sax ba àddunay tukki. kon nag. Euh, locataire palais bi changé na de. macha allah kon nag président bu ñëwaat fii. waaw. Hmm. di nga ko woyaat. mooy suñu njiit réew. Djiby sax marto nga yor di ko dóor. Djiby <laughs> Djiby bàyyi président de la république. ah Macky yàlla moom la fi indi. <laughs> martaba dal na ko. ah rey na Macky. léegi nag. fii nga ko ah, sama sama nawle géwél yi nekk fii wala fi dañu ne Djiby Dramé. waaw nguur bu ñëw toog. ñoo créé la waa créé woowu. Ah, ah, ah créé. kan waa mi. nee na ma xam na mosoon ca Ablaye Wade boo ko. nee na ma ha ha de. il faut que ñu audité ma. waaw. ok. man lu ma woy rek ndeysaan mi la ma ko ma am géwél la ma ko Samba Jéeri Jàllo daal ngéwél ko may waaw ku toog rek wuy ko yow sa yoon ne mais mais Jibi man Jibi apolitique moi waaw waaw ah, Jibi Jibi nga ne sénégalais ka nga man sénégalais cent pour cent ah, gars yi de nee nañu woykatu sénégalais yëpp dañuy dem Yémen ci guerre ba ah def na ma ko de waaye léegi loo ko tontu loo ko tontu nga ne ko lan nga ne ko malien la mu ne man malien la mu ne oh, man ko man duma sénégalais mu ne ko doo sénégalais <laughs> bu ci yemen desee rek nekkal malien des ci voilà waaw moom gaaw gaaw rek mu dem na malien man xaw ma Kouthia fu mu jël inspiration boobu mais am nga tuuti loo laal am na tuuti loo laal ci Mali waaw ni Mali yëngoo nii lan la def ci sa xol waaw sant yàlla lañ xam nga xam nga tey ndeysaan ñu ngi commencé mm. souffler kon mm. na sant yàlla mm-hmm. sinon tiitoon naa trop mm-hmm. ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi man na damay damay bëggee Mali ndax man Malien dañu may déplacé loo fii man dem Mali. Mhm. di di di jouer foofu. le concert mhm. di jouer foofu bâtiment. même kii bi sax kii bi kii bi da cee bokkoon am na lu am na luy xew Mali lu mag laa seen télé bi di ko organisé. Sambe Sambe. waaw oui Sambe Sambe jënd du benn du ah, ak artistes yi bëri foofu. waaw waay waay jibi récemment sax si nuyu du base. waaw lan ngay woote ci guerre bi foofu ci ci ci bambaraan. waaw guerre bi nii xam ne ndeysaan. Hmm. Euh, nga xam ne mais Mali dëkk riche la dëkk culture la non dama nga wax leen ko ci nañu euh, euh, jàppoo nekk benn. waaw. Euh, ñu bàyyi parce que. man dafa neex après ci bambara. Ah, man dafa neex trop. Mhm. parce que man xam naa Mali dafa neex. ndax képp ki doomu daana soo demee Mali nga xam ne Mali neex na. man sax dem naa ko dafa mais mais Jibi. Jibi defe naa ni. ba nga ñëwee fii 11 ans nga ne ci carrière musique. Mhm. nga ñëw Sénégal. Mhm. nga fekk fii say nawle yi nit nag ñu yaatal la mm-hmm. aar la gunge mm-hmm. la uh-huh. dee la ba nga ñeme mm-hmm. mooy sa mag ñu fi fekk ñuy way way mbalax ñooñu say relation ak ñoom tey laa lay laaj lan la xanaa relation eh, ndeeg bàyyi rek ñu xajal ma lool yaatal ma lool balaa mee balaa mee bég sax may kontaan ma am sama géew te gis dañuy bàyyi seen seen soxla yëpp. dëgg la ñëw ñëw si ma. Sénégal la ñëw. voilà man sama benn géew musul musul am ba may mun a lim kii diw ñëwul kii euh, kenn ñëwul sama première édition la nuit du Badja jusqu'à onzième édition ma may wax ak tey man ndaana ñëpp ñëw nañu sama mhm. di remercier suñu doyen Youssou Ndour. Mhm. ñëw na sama plateau Mbaye moom ñëpp ni ma seede ak moom. Mhm. Aliou Mbaye Fallou Dieng du ma lim kenn. Pape Diouf ak ñëpp waañee rek. Mm-hmm. képp kii mag. Mm-hmm. nga nekk ndaanaan man ñëw nga sama plateau. mais ngay fay moom ndaanaan. wallaay euh, mm-hmm. odo wi Samba Dogota. Samba. o Dogota wanaadu. ah loo xalaat. Ndiaye de mi ngi kii wan wan boppam mi ngi doose de. mi ngi ko mi ñu ganna samara moo la. waaw xanaa mi ñu ganna waay yow. ñëw. a dogata samba dogata. mosu saa bone laamata ko koy. dogata. ndeysaan. ay hafo samba ye. ndeysaan samba te bori ñaan. fete ko leen. samori ye kele ke a ma jali den noo kele. samori ye kele ke. ama jombalu kele naamu ndeysaan saamori ye kele ke hmm. ama fina denu kele ndeysaan saamori ye kele ke ñoo ngi ngonal ama numu denu kele ndeysaan hmm. a tɔgɔte suri ye a tɔgɔlɛ kodilanna ndeysaan filiyo mamina da jatigɛmu filiyoo ndaare leydi ndeysaan wàcce ko tuuti wàcce ko ci suuf ndeysaan jibi wàcce ko ci suuf jibi ñii ñooy Touba Gaz ah. Touba Gaz ba émission bi de émission ba léegi ñoo ñu gunge ay doomi réew mi ñoo ko moom ay doomi réew mi ñoo ci liggéey entreprise bu nekk fii ci réew mi la ñu nangul leen li ñuy def ci wàllu sécurité ak yaxan ak sel na wóor na yomb na baax na ñu tudd Touba Gaz ñu certifié leen li ñuy wax ISO ISO waaw ñu ñii dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo sponsorisé émission bi nangu nag ñëw bi nga parce que fii ku fii ñëw sponsor yi dañ koy xam mhm. waaw ñu nangu ko acca jibi defe naa ne. am na 9 kilos bi tamit. dégg nga waaw 9 kilos baa ngi nii 9 kilos baa ngi nii. kii kii maanaam sama maman chérie rek. waaw maman chérie waaw maman chérie xam naa ne maman chérie ku mën a togg. doon ci ñëw doon ci ñëw ay toow lay togg ak yow. doon ci ñëw ay saxa saxa saxa saxa. doon ci ñëw jibi. demal defe naa ne ku ñëw sa nuyu di basin boobu. waaw lu ñu naan marchandise jaay ko fu muy jaree. waaw yëre bu riis jaay ko ci nuyu boobu. waaw fii lu mu la wax ci Touba gaz. Mm-hmm. Orange Money. ak poudre magique sourire ñooñu gunge. Orange Money. Mm-hmm. xaalis la boo xam ni da nga koy jëñ sa biir portable te boo koy inscrire doo fay dara dëgg la soo dëkkul ci réew mi laa wax de soo dëkkul ci réew mi boo jugee Mali hmm. passeport ngay joxe comme Djiby boo non non moom Tamba la jógee carte d'identité la yor Tamba a ah, jógee nga carte d'identité Tambacounda bokk ba kay Sénégal oriental Sénégal oriental région bi gën a rëy mooy Tamba yaa ngi dégg donc boo inscrire boo dëkkul ci réew mi passeport kese doo fay dara ñu inscrire la nga am compte Orange Money bu dee ci réew mi carte d'identité mu nekk lu nga xam ni dangay ngay fay sa facture courant fay sa facture ndox jënd ci essence jënd ci essence ci sa canal yónnee ci xaalis recevoir ci xaalis te doo génn sa néeg sa sa lal ngay tëdd di seetaan sa télé di fay sa facture. dëgg la. kon defe naa ne loolu. Mhm. te bis boo ko defee ñu may la bonus crédit sa téléphone. ñooñu mooy waa Orange Money. Orange Money gunge ngonal. xam nga ñu ñu bàkkee seen bopp. Ah. Orange Money rek la. rek rek ba lañ ca teg. rek la. waaw waaw kii mooy poudre magique moom rek la. sourire waaw. Oh. kii ay doomu réew mee ko jëlee bitim réew. te moom day waaw dama bëgg ba ñu ñu weexee <laughs> damaa bëgg xam nga ba ñuy weex na damaa bëgg mu tàll kay ndax poudre la bu nga xam ne da nga jël sa brosse euh. def ci tuuti ndox capp ko ci brosse sa bëñ day weex tàll euh. katu cigarette yi ku am tache ci bañ lépp dafay set wicc <laughs> maison mère bi mi ngi tudd Cheikhouna Mbacké Trading nekk Touba Sandaga troisième étage ah jibi waaw yow. daa xewle nag. waaw moom laa ñëw nii. waaw ci nag daa xewle xew waaw waaw daa xewle. waaw daan commencé man nag damaa defi ne xanaa nag booy dem euh, mooy ñoom Usain Bolt. waaw. xam nga ñoom bu ñëwee ba ligne d'arrivée. waaw dañu gën a accéléré. waaw arrivé. waaw ñu jox leen médaille d'or. waaw. jibi di départ. waaw ba ligne d'arrivée. waaw di arrière dem ligne de départ. lan lan lu xaw loolu. Sorano la commencé woon di bassin. waaw dafa waat ko Sorano. ñaari at yu weesu yëpp. waaw mu def ko grand théâtre mu fees del. waaw. fu mu neex 800000 lu tax moo ma jaaxal lu tax ji man nag damaa yaakaar daa xuloo ñoom daaw. ndax daaw damaa damaa rideau yi di tëj te affaire ba jeexul. lu xaw lu xaw ji bi. waaw lu xaw eh, ah. dara dara ba eh, jàmm. xuloowu leen. xuloowu dara daal eh, defuñu benn ñaayoo. waaw looy xam ne man laa dooree. waaw Sorano j'ai fait huit éditions ba neuf éditions Sorano. Mm-hmm. te loolu yëpp Sorano moom tax sénégalais xam ne ma imagine toi que chanteur kenn xamu ko kenn ràññewu ko sur le show musical kenn gisu ko écran waaw ñu jékki dañuy gis ko sur plateau waaw Sorano moo may loolu waaw ma am fierté mhm. ñoo delloo leen jukkal nag mooy suñu cinquantenaire yam ah, soo Sorano moo tax nga delluwaat foofu ah, cinquantenaire bi la voilà akay ah yow ko am ko la rek ndeysaan bi kañ la kañ la vingt cinq inchallah samedi bi tey la mercredi tey la mercredi jeudi vendredi ñaata la entrée euh, soo gisee ndeysaan sama ah. soppe alaaji tellement dañoo fidèle waaw dañoo fidèle waaw te ba euh, occasion bi rek la ñuy xas ji bi dramé yow guddi moo tax ma def euh, entrée simple cinq mille waaw VIP ma def ko dix mille mais jibi waaw mais jibi mm. mm. li ma jaaxal mooy mm. ñett fan a ngi nii Sénégal gi yëpp ñu ngi wër billet euh. xamuñu fu muy jaay gisuñu billet xam nga fu mu nekk billet yi man de for naa ci wewu béy ñu ni ma jibi dramé da lay tuddee guddi gi da ngay bokk ci ñi mu ko tudde joxaat la billet ni la jaayal nga jënd par force ah, ah, nga wër jaayaat. te da lay tuddee guddi gi de di nga joxe tuddee bi jaay ci billet yi ah, bu ñëwee mu way la nga jàppale day rek leen jàppale day mat mais Ndiaye ana billet xam nga soppee gis te bi waaw euh, yéen daal mu ngi suraano soor waay euh, ah, bi billet yi waaw naa wax ne que démb la génn waaw ah. la génn waaw moo taxit ñu nga xulu ana ngi suraano waaw soo demee suraano rek wañ nañ ko sax adresse bi dem nañ ko ci publicité bi. yow Sorano kese ngay jaay. ah kese lay jaay. dem nañ Sorano ah, ndax mu bañ a am kii daal. voilà c'est ça dama bañ naa ko sax sama groupe euh, sama euh, euh, sama. orchestre non non staff sama staff laa formé pour uniquement. organisation bi organisation billet yi. ñoom ñu génn imagine toi que nga jaay sa billet 5000 10 000 pour uniquement sa soppe yi. ñëpp mën a xam ne mën a euh, euh, voilà c'est ça ñu xam ne jamono bi métti na loo xam ne euh, bugguma di sonal nit ñi. moo taxit ma def bi 5000 la léegi nag am na xam ne ñuy bëgg a lu bari quantité bi du ko jaay ay 30 000 50 moo taxit ma jël sama staff ma ne ko bu ñu teel a génnee bi yi. nañu xaar ba dernier moment. Mhm. léegi soppee su ñëwee mu ñu jaay leen billet yi. mais comme trafiquants yi dañuy ñëw. jënd euh, billet yi. di ko jaayaat ay trente mille ay cinquante mille. te yow entrée simple cinq mille VIP dix mille nga jël boobu du ko jaayaat lu teel plus que ça moo taxit euh, ma yéex génne bi yi. léegi jibi jibi ba may ñëw sa a génne ñu moom. waaw ah, mais non non eh, dem demul demul demul demul la génn. Ah, incha allah mais yow après yenn billet jox ko ni ñu ko tuddee ni leen jaay leen. non ni ma ma ko tuddee ñoom ñoom ay ñoom ñoom ñoom ñu yàkkamti sama géew. waaw waaw yàkkamti sama géew ah géew ba la ñu yàkkamti pour defante. waaw ah, defante ak sama mais man man damaa ñëw. Eh. gis fa ay Ivoirien. Eh. ay Burkinabé. ay Nigérien. Hmm. ay Nigériane. Mm. ay ñooñu ñëpp gis naa leen mm. sànq ah, répétition ñooñu ñan la ñu bis bay tax ñu ñëw wala lan la waaw ndeysaan sama gan yi nga xam ne ñu ngi jóge partout pour uniquement mm-hmm. bës bi euh, ñi réel ñi ñi ñi màggal ko mm-hmm. ndax chaque année euh, euh, sénégalais yi dañ koy consommer mm-hmm. dinaa ne diaspora bi dañ koy consommer surtout di ko bégte bégte am na ndeysaan nga xam ne TFM en euh, TFM ñoo koy couvrir. direct en direct. direct kon dina neex. samedi bi ñaata yére nga fa nam ma sol. incha allah rabbi yàgg ma chéri yi. falal su ñu mënee minute bu nekk mën naa sol yére. Ah. ah waaw da ngay luxus en tant que woy bu ngi génn rek man maa ngi. te yére yëpp Sénégal la jógee wala Mali. Mali la jógee. ku la ñawal xanaa ñoom Ilimane borom Caaroy boo Ilimane. Ah, waaw waaw waaw si laay ñëw Ilimane moo solal kii Alaaji. nii ma mel nii. waaw ah. Ilimane boo gisee yàq xamal ne xamal ne am na lu ne ni ma mel nii. waaw boo gisee yàq man tamit nu ma mel nii. Baye Niass ma wax ba pare xaar ba pare. Ilimane. waaw di booy boo xam ne ciseau damm ci loxo bi. maa la ko wax dafa Océan Couture. waaw moo ma yàq nii. toogal ko nii léegi lii lii foog nga solaat nii du basé nga solaat. beneen la ko Ilimane ñëw la martage laa lay def. yow nga ne yow ku la génne fi yow. avec Ilimane tuuti ba yow man li Baye Niass moo ma génnee lii. kan Baye Niass. Baye Niass moo ma génnee lii. Baye Niass Baye ah, Niass xale bu ndaw ah Mbaye Niass. Mbaye Niass dama lay wax. <laughs> dégg loola Mbaye Niass. <laughs> Mbaye Niass. waaw Mbaye Niass. voilà moo génnee lii. waaw mais ndeysaan am na sponsor yu bari xam ne ndeysaan. waa toogal ci bi. élément dina la ñëwal ñu jógal. Mohamed Mohamed NBG. raxasal ma sama oto. ne ma seex solal yëre. waaw wuyu ma jibi waaw damaa bëgg rek mu tëjee leen. waaw ah, ah tuuti rek après soppeem bu fa ñëw sol vax. Eh, eh, may leen ko mu woote. day moom laa koy wax ne après mu woote ñu tëj ñu tëj benn nag. waaw wooteel parce que nag bëgg a <laughs> jibi. may cinq minutes may cinq minutes mu tëj mu tëj. xam naa ne loolu la la toog nag jibi <laughs> wooteel ak surprise du Sénégal am ci xew ma yëpp wax. waaw ak surprise ñëwal. surprise yoo xam ne artiste surprise yi bari. yow rek kay wax noppi nañu waaw euh, Mali dina teew. Adja Soumano sama mag bu baax bi dina ñëw ak su ñaamee sama ndaanaan bu bu xarañ si biir Bamako waaw pare sama sama eh, géwél bi aussi euh, Baba Ñaame Camara pare Maabo sama Maabo bi mu ngi dina ñëw parrain yi euh, am nañu surtout yoo xam ne ñu ngi jógee Guinée ñu ngi ñëw teew bës bi am na xam ne ñu jógee Côte d'Ivoire pour teew bés bi dina métti lool. parrain ak marraine yi. ma du ma mës a bàyyi ñoo xam ne dañ may jàppale. am na ay ndey ak baay yu bëri. ndey ak baay yu bëri. ku lim juum ku lim juum ku lim juum. waaye ka ndey ak baay bu mag bi nag kan la. ndey ak baay bu mag bi. waaw El Hadj Sidiki Kaba doo ko bàyyi ginnaaw. maître de la justice waaw de la justice. waaw mooy baay bi ndey ndey ju mag ji kan la moo tax ma nekk El Hadj bi dara mais moom mooy bu bay ci laay. ndey ju mag ji kan la ndey ju mag ji. ndey ju mag bi Aïda Sow Diawara. war nañ dem bay ci laay de. Aïda Sow Diawara. Aïda Sow Diawara. jibi tëjal tëjal ñu benn jibi tëjal tëjal waaye waaye jibi génnal kër gi tëjal ñu benn nañu tëjal benn moom moom lañ lay eh, boo yéen embauché nañ leen waaye yéen eh, xale yéen kay dàq nañu baro yéen lañ lay wax de waaw ah waaw ba pare nag waaw macha allah waaw Eh, <laughs> da ngaa bëgg mbubu bu rafet rek. da ngaa bëgg mbubu bu rafet. mais ndax da ngaa bëgg mbubu bu rafet ndax bëgg naa mbubu bu rafet. waaw ko bëgg. waaw mbubu bu rafet ñëpp ko bëgg. est ce bëgg nga ko ba suuf saa. du ca bés ba. waaw ah. non xam nga nag kàcc baaxul. mais waaw kàcc nag baaxul du ma ñëw. <laughs> voilà waa SMCB ga. waaw. SM Sénégal. waaw incha allah rabbi mooy def mooy mooy mooy mooy toj dëkk dëkk euh, jour boobu. waaw waaw may nañ la nga publicité waaye bu ko jaara ci man. voilà waaw publicité may bu ko jaara ci man. naan man ndax da ngaa bëgg moo rafet di ma coytu ñoonu. SM Sénégal lu ma séq ak ñoom séquma ak ñoom ñi. booy <laughs> dañuy toog séqal. tëjal tëjal jibi. yaa alale ko la ñu ni naa. ni naa. Mansa alale ko la ñu ni naa. ni naa. ala sumaya ala sumaya alu tegoni ni kora sumaya ñe la ilaha illallah day alu bi way yamar yo jaloolu ni na ko jaliya jaliya koro wa saduguni mamu ce jaliya ndeysaan fa kari de jalike mm. to ngaro kanu tela jali ke ka fara cemo ko jula jebaga tela jali ke ga jango oh, ce ku tarde sorano ah samedi la samedi rendez rendez-vous déedéet man yi lu tax nga ñëw ba nag ma danaa trop ma dañ la trop ba émission bi du ma la tapal xaalis man garab bu xaalis laa bu xaalis demal demal demal woo naa leen wax woo woo ñu